jërë ngeen jëf mbokki wasaare làmb ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar bu ñu gisee toogaay bu jekk bi tey ngeen xam ne Papis Général lañ seet ndaanaan koo xam ne lu ne def na ko ci làmb waaye nag dañoo jékki-jékki gisatuñ ko ñu bëgg a ñëw bëgg koo seet si waxtaan ak moom ci làmb waxtaan ak moom ci actualité yi nga xamante ni moo am ci Sénégal waxtaan ak moom ci li nga xamante ni la nekk jamono ji ndax gis nañ ko fan yi def na sorti am na jot a wax ñu bëgg mu mu leer ci wasaare làmb ñu bàyyi ko mu nuyoo maa ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar. sama socc bi maa ngi lay char bu baax a baax waay mm-hmm. maa ngi lay bëgg bu baax sant yàlla jur ci sama ñaari waajur mm-hmm. sant sama waa kër surtout Ibra Gueye sama bu góor bu ndeeg baay samay rak yu nekk bitim réew sama yaay bitim réew sama nijaay moom yàlla suuf oyof ci kawam ak samay xarit sëñ Modou Kora borom daaru waaye ak sama xarit yi am na ñu fi nekkul nag sant yàlla rek maa ngi siyaar ñëpp daal waaw am naa fi yéen ak ay xarit yu bëri yu bëri mais jamono ji ñu ma nekkal waaw siyaar naa ñëpp dëgg naa ñëpp as ndaw borom ndukumaan mm-hmm. ndukumaan transit non mënuma ko ñàkk gën a wax dëgg na yàlla siyaar tey da ngaa seet tey nag ñu ñëw seet si la mais balaa may dugg ci waxtaan wi dama bëgg ñu fàttali kan mooy Papis Général ndax Papis gëj nañ koo gis depuis combat moo Quench mais dafa am loo xamante ne Papis na ko ci làmb te loolu mënuñu koo ñàkk bañ a fësal xam nga nit day day nekk ci dara ba génn ci comme ni ñu ko waxee ci làmb làmb boo ci nekkee ay nit topp la waaye boo demee ba génn ci ñu bay dootoo leen gis ñu bay da leen di fàtte ñu bay dañ lay bàyyi waaye ñu dellu ci làmb Papis nga def ci làmb lu ne mais ñu jékki-jékki nga raar làmb ak li nga def ci làmb su ma juumul benn defet nga am mm-hmm. non benn fi la am. ñaata victoire. on oh, dix dix victoire benn défaite. Oh. waaw benn défaite waaw. du ma ñëwagum sax ci ci bi mais damay ñëw ci victoire yi nga teg li fi ay victoire daan fi ay ndaanaan la dugal ci làmb Papis. làmb nag wax dëgg na xaw ma lu ma ci dugal. mais xam naa sama maam. macha allah làmb xam-xam yoroon na ko. sàmm bu góor. ba duggoon ci làmb. fi ma toll. da koy dépassé téeméeru junni yoon. sama bu góor. bëriwul na kañ bëri simple la bëri mais paa yi ñoo ko tere ndax dafa mënoon jàng macha allah laf cat doomu jàmbur. waaye nag macha allah waaye kooku boo gisee rek nga xam ne kii bu dee kese. fit hygiène de vie respect. non macha allah man lu mu bu duggoon ci làmb lu mu ci mos dum ko Ibra Jo Gueye waaw ñu tëree ko làmb ndax dama mënoon jàng rek. mu dugg ci làmb ñu tëree ko làmb yow nga dugg ci làmb. ñu bàyyi loolu moo tax ñu ñu bàyyi ma ku nekk am na loo moom moo ngi nii dañ koo bàyyiwoo làmb li tax ñu bàyyi ko làmb dafa mënoon jàng école. def na ko yàlla baaxal na ko ci loolu macha allah laf cat bu samay wax loolu ci internet waaye mënuma koo ñàkk wax nda ko def lu baax rek ñu waxal la lu baax hmm. dafa def lu baax. Hmm, bu ko neexoon mu taaw daje nañ benn làmb collège ñu fanaan quart de finale mu ne ma suba bu ndajee dum la may de. moom sama bi bu góor ñoo bokk ndey ak moom laa après man mu ne ko ah mu ne ma waaw heure boobu noonu su ko neexoon ñu daje ah su ma mayul tamit mënu ma ci moom de na door ji ëpp na. billaay njool fees deel macha allah amul woon caaxaan ci àdduna te ba léegi sa amul caaxaan. waaye nag yàlla tamit di lañ naan kii la may lii kii la may le kii la may lee après yàlla moo may lii rek ma dem moom tamit lu ko yàlla may dem na provena ci nice ma macha allah. ñu gis la mbapat toj nga mbapat Papis Général fu mu dugg day fecc bëri daan yóbbu la fa nekkoon lépp na mbapat bi naka la demee woon. li ma am ci mbapat amuma ko aareen mbapat. lu ma ci am oo ma ko aareen mbapat lañ ma commencé may ay millions. waaw mbapat laa commencé am ay oto. moto bu ne story bu ne am naa ko mbapat. aareen mhm. moom damaa noon soog a ñëw aareen waaye bu ma nekkee par exemple ci digg nañu ci mbapat suñu ma indi woon Dakar rek dina am lu xew de waaye yàllaay dogal ku nekk sa wërsëg Mm. dégg naa bi ngay nekk mbapat sa sa sa ngemb dafa amoon doole ngemb loo xamante ni nii ñi fi nekkoon sax ñi fi nekk ay mbër amuñu woon ngemb li ñu toll. ba léegi gisuma ko arène. arène laa la wax de ko arène. arène am na fi am na fi ay ngemb ay mbër yoo xamante ni seen ngemb daa dis ku ci mel ni Modou Lo. Balla Gaye 2 Boy Niang Ama Baldé su ma yemee ci ñeentu ñooñu rek seen ngemb macha allah. man dama la tur turu kenn. ñooñu man maa leen tudd. xam nga luy problème bi. saa mbapat sama ngemb mbapat. yàlla xam ne dem dem naa dëkk ñoom Yékini kooku noonu dootul am senegal ci àdduna Yékini dootul am senegal ak Manga 2 maa ngi koy nuyu au nekk ay séeréer moo tax ne dootul am. non non lu ñu def la lu nekk ay séeréer lu ñu def la séeréer yi ñu ñaata séeréer ñoo fi ne. jaar. bari nañ ñu foofu yëpp de seen jëf la ñoo ko jëfee ñu gis ñoo ko def ñu gis mooy jëfee rek waaye sama ngemb dem naa dëkk ñoom Yékini dem naa ba troisième tour nañuy arrêté làmb ji ne lii du mëppatu làmb mëppatu xare la troisième tour mënu maa bëre kenn ñii seen mbagg di simeeku ñii seen loxo yi tee su ci biir béréb bi lay am. ndax ngeen mulee bon. da ngeen ba ci biir seen loxo di si. waaw damaa su teewoon ay mankaani yu metti te pourtant moo ngi fi ba léegi de. suma ma yow moo ngi ci yow. sama ngeen mu kan laa koy jox gisako mu kan laa koy jox di sama rakk Nicolas ak mun a bëre macha allah waaye moo ngi liggéey sama usine yaay. garaawul. léegi ngeen mu da ko fas yéenee téye doo ko joxe wala boo gisee koo xamante ni wóolu nga ko mu doy la di ko ko jox. mun naa nekk nag wax dëgg na yàlla. ku ma wóolu. ma jox ko su ma gisul nag ku ma wóolu ma deewee dañ koy suul ngembali force. xanaa amoo ay xarit mbër daan naa la sama xarit la diw maa ko bëggal sama bopp. waaw am na kañ. Ah, lu ma dem fu mu ko ma yóbbu leen fa. léegi lu ah, ma ñi ma jàpp dëgg. Mhm. déggal ko ci defet de. Papis Général jàpp na kii daanu na. ah <laughs> koy wax fii matuñ ñaar de. mais ma dégg la nga ne euh, ngemb li nga yoroon du ngembu xale gemb li nga yoroon ngembu mankaañ la mais bi nga. non du mankaañ de. da nga sangoon ay mankaañ. mankaañ xeet la. mooy xeetu joolaa mankaañ. ay mankaande laa la wax mankaande. waaye mankaañ mankaañ xeet la. xam nga luy mankande ku la jàpp du kenn la mën a jàpp sa loxo day day metti doo mën a jàpp dara. ah yow ni may bëree na ma tolloon ak ñoom nu ñu toll ñoom ëppoon foofu ah, <laughs> waaw kon jékkalu li des meloon naa noonu de man dama doon génne samay gàllaaj di ko ko abal mbër man Papis. gàllaaj bi nga takk nga jël ko mbër. ma suul su ma ak sëñ Modou Kura ma yaakaar. su ma déwee yàlla ma lakk. def naa ko. léegi loolu lan ci jublu woon. ñu am ndam. ndax samay nit lañu samay rakk lañu ñi samay mag lañu. est-ce que buñ waaw dañ ma ko doon delloo. léegi la moo tax nga ne Kalmoundou sax kala Kalmoundou di nga ko jàppale Kalmoundou bu toogee bu tëddee na nelaw. est-ce que am na maa def deux trois jours gisuma Kalmoundou. Kalmoundou fu mu nekk du dëkk mar mar bii la rek mar. Mm-hmm. Hmm? suñu mbokk la. mar looj mosuma faa daanu. jënd naa fa raw gaadu. poids léger deux fois poids lourd mosuma faa daanu man. bëre door bu ma ñëw Ndakaaru bëre door damaa sonn ci bëre simple. 18 ans maa ngi jël ay lamb bëri sama ba tey ana ban mbir nga gis mooy jóg dëkk ak dëkk indi 5000 francs ci oto war koo fay 35000 dab si lamb boo daanoo premier tour ñàkk nga dem final sa boo daanoo ñàkk nga ma lañ dem ma ne may lekk force. luñ la doon déey la wala sa gëm bopp la. non man mun xam nañ moom amul Sénégal ku ma dàgg bëri mun nga ma abu chance na yàlla ay maye. daa am ci laa mujj de am na mbër yu nekk Ndakaaru fii mënuñu tus te ñoo ngi lekk ay million et te ñoom lu ñu lekk sax man lekkuma ko te maa leen dàkk bëre téeméeri junni yoon du fit du gaa laaj du dara maa leen dàkk bëre foofu te pourtant ñoo ngi lekk ay millions seen wërsëgu yàlla lax nañ ko jël yàlla mu des si ñoom waaye nag damaa xamoon lan naa doon bëre simple lan laa mun ak ñi may xaar su ma taaroon sama oto ñaari oto di dem si ay làmbu oto yooyu ñu def fiño xam nga fiño boo jógee suñu dëkk wàcc pont bi fa la oto yi di gaare kalandoo yi ñëpp ay jël cette place kalandoo fu muy sitaan ñu naan nangam ñëpp jógu nañ ndax pour sitaan lu neex ak fecc gu neex xale bu ndaw xale bu ndaw mhm. doo yab fii Dakar la su ma duggoon sax nii laa koy rombee mu may xool ni du def dara billahi walaay talaahi si nee naa Sénégal amul mbër buy taaw Sénégal sakoñ koñ may dugg daa am may seet si sa koñ si yu loo may def da nga yow nga def ma dara na mbër jéem ci man Pape Général. moom fi moom mbër du jéem ci yow ndax xam naa ne bëreetuloo ji leneen la lay soxlaa pour nga jàppale ko xam naa ne moom mbër moom du jéem ci yow da waaw ma Sénégal yi ak dañu bëgg affaire bandi bandi bandi sàccal defal la neex waaye nag bu dee fit rek ak xee ak histoire ak nangam naaru Moussa koy na nga téye ma loolu duma ci sori dina mos a am àdduna mu solo. <laughs> Ah, kon de bu nga bàyyi di wax ci mbër yi ndax xam naa ne moom am na ñoo xamante ni mbër yi ngay lim nii ne dañ leen def nangam dañ leen def nangam. ñaari mbër laa lay maral. waaw ah, yow waxal tur yi ma dégg. maa ko wax. waxal man maa ko wax. monsieur Junior. waaw. doomu Jalaaw. man maa ko wax sama man. léegi nag sama kër. ñaata sëriñ ñu nekk Sénégal di jàppale ay mbër. kenn demul seen kër sama kër la ñuy ñëw nag kenn jiitu dootu ko defati mukk ci àdduna. waxuma la gaa laaj fit ak pare naa pour faatu ndax xam naa dinaa dee na nga dee amul Sénégal fii fii sama ko sama fii nii astafurlah sëñ bi hmm? dàkk nañ trois boy ñaari boy yëpp sey benn boy daw si ba fii man maa ko téye dugal ko fii mbooloo bi ko topp buñ ko jotoon dañ koy rey tëj bunt bi dab si leen ne leen sama koñ gii A ba Z kenn du fi rey kenn ñu naan kuñu Papis Général la kan la sàcc ñu ne benn jigéen la bu ko sàcc waaye jotu koo sàcc. nga baal ma ci ci ci laaj bi. non non garaawul waaw bul sama yaay rek. waaw kon nag baal naa la. ban moment nga nga nga ne yaa ngi leel ak moment bi nga moment boobu na luy ñëw ci yow. non non sama papa laa jëlee leer rek sama papa daa leer sama mag ak yéen ñoo bëgg nekk baay moom leelul de amul sa ay béjaaw sama mag bu góor a ngi fii amul ay béjaaw leelul. sama papa laa jëlee lii wala tamit yàlla def ko ci man mun na wax sama bosu papa ñaar yoon ko si laa mun ñu ne leel la wala xaalis. wala dof. kon hmm. hmm? laaj naa la ko. Ah, yaa interview pat du waaw nga ñibbi seen kër Sénégal bi waa bitim réew di leen di woo. su de kon xam-xam la. waa bitim réew lu leen di pourtant yéen na ma. dañ laa fan dong moo tax ñu bëgg a jël sa numéro di la woo. kañ moom Sénégal ak ubbedi su ma génn fi nit ñi gis ma bitim réew ak Sénégal kan moom may gis fii. fi mu toll nii moom fii xewatoo fi moom da ngaa xew ndax bëreetuloo. Hmm. ah waaw. damaa xewi. xewi wax noonu fii ñu topp ma loolu moom. Hmm, bésu làmb. waaw ak bésu lii dafa bokk. bokkul. ah ok kon yow da ngaa xewi. xaas moo xew. <laughs> déet xaas kay xewul wasaare. <laughs> kon laa mu xewul xam nga mu xewul. <laughs> léegi sama socc bi kañ nga ma koy yóbbu ah, xam-xam ne ko fi kañ doon yóbbu dara. li nit ñi wax la wax mais man laa yóbbu basang bi. soo amoon kàddu yu mujj loo ñuy wax. sant yàlla ak yonante niw nag waa indi 18 Mbala Joal Fadiouth fa laa jógee xam naa lépp si ñoom macha allah jaroon nañ jëf la unité 18 unité 22 HLM Grand Médine ak 19 gi ni yow fii bu may dund fii ba léegi benn yoon la ma sa tooñ waaw ñoom xam nañ xam naa loo jëru wax waaw sama xaj bi moo lekkoon xar rek sëñ Modou Kora borom daaru waaw du ñàkk nag erreur du ñàkk de nit jam na fi nit mu dee di bu taat yow ko de. yàlla dugal rek. sëñ Bass yaa ngi koy dégg xajam bee fi xar ba fay nga. déedéet daf maa baal. Ah. Mhm. Sénégal. Hmm? lii nag xam naa doo ko dugal. Ah, da ngaa bëgg def émission ma ak yow. Sénégal kenn mënu ñëpp mënuñ maa bëgg ñii dañuy bëgg ñii bañ. Mhm. waaye nag. li coow li bari bari bëri yéen a ko commencé nag wax dëgg na yàlla nag. waaw yen indi interview ñu waxtaan senegal bi di ñuy mambu. Mm-hmm. wasaare papi général. yéen ñi nag dama ko wax xam nga lépp. Mm-hmm. Hmm? Mm-hmm. mais kontaan ci yow Ouzin sama gaayen nga wax naa lépp avant. àddina moo solo waaye di nuyuwaat waa inde 19 gii. Ouzin bu ma ñàkk fi dara jafe na de. mën naa ru sa noppi waaye ku ci laaj mu jox ma waaye su ma yoree nag. am nañ ñu may jox ma problème boobu ci live sant yàlla bu baax a baax mais Sénégal ñii dañuy nangu ñii duñ nangu su ma toogoon Sénégal ñëpp bëgg rek sama dée ngi nii may xool nii ñëpp bëgg la Sénégal waaw xoolal ñoom Taïsé ñoom Balla Gaye am na ay noon di lu ndaw lii na bu amul noonu te ñoom lu ñuy téye téewu ma ko nan lay def fan laa jëm àddina mu solo respect moo fi ne jaam ak salaam waaye lu mu la munti wax ah boo ñëwee ñu defaat ko message li ma wax. naa la ko yónnee. incha allah ko yónnee kenn nag yow laa koy yónnee. ndax damaa bëgg nag kuy dund man kuy liggéey ak man nga jox liggéey bi respe waa benn site mënul ñëw di liggéey ak man ñuy wax lu ñuy wax ma ko waa téléphone du ma jël joxuma dara yi lekk ma wax leb sax yow laay envoyé lépp nga teel ma nag message yi cinq bu jeexee. nga ñëwaat fii ñu xool waaw ñu toog waxtaane ko nga génne def grand écran yi ndax am na wala amul wala waaw sant naa ñëpp wasaare wasaare kan dafa doy xam nga ne da ngay dugg ci benn sëriñ muy xool peetaaw bu defee ni bés peetaaw yëpp tourné nii joxe biir mun ne seet bi wasaana kon wasaare dem na fu ne ma jaamu waay fa di nuyu sama gars yi nag ñoom ñëpp mënuma lim ñëpp. Mhm. na ñi moom moo dëgg a neex a ñu maa bëgg torop oo ma fi sax seen kër bu ma neex laay lekk fii. ko ñu lekk seen kër sax su ma leen jox lañ ma nangam ñu jox ma ko billahi walaay talaahi àddina moo solo mais ne leen ñu noppale gu man la ku nekk yàllaa koy may nañ nangu leen yàlla may man nangul laa leen ko waaye li ma yàlla may bu ñu ko nangoo bu ñu ko nanguwul moo ma ko may te moom yow yàlla ku ci mun dara na nga wax ak yàlla noppi na amal jaamu yow. kontaan nañ ñi lañ koy defee ci wasaare di leen jox dig daje ba beneen sëñ Bas kontaan naa ci yow bu baax a baax jaajëf.